waaw jawrin maa ya, ngi lay ziare waa li certes dama ko dugal nii rek dama ko dugal nii rek xëy na ma ci dara dama ko dugal nii rek pour xeeti missile F4 F5 F14 yoo xamante ne si eh, eh, ne yu hypersonique la yu kii wu iranien yi yu ñu defar malgré que depuis lors ba léegi ñu ñu wax amul amul matériel amul amul matériel xam nga xeex dafa am dafa am ay méthode dafa am na ñuy xeexee surtout si wàllum arme léegi nag guerre bal nga boo ci dugg day organ bien organisé parce que mooy mooy mooy bu ma ko bu ma ko bëggoon a expliquer ci lu nit ñi mën a comprendre mooy loo xamante ne si ne comme entraîneur si équipe gis nga entraîneur koo dégg ñuy wax ne mooy meilleur entraîneur équipe de football mooy dafa mën dafa dafa mën nu muy organiser jeu bi parce que rythme jeu bi ni nga débuté noonu ngay terminer match bi. dafa am ay temps fort am ay temps faible sa temps fort soo ko amee da nga koy exploiter utiliser sa efficacité sa temps faible da ngay fexe ba teg sa bloc défensif pour maintenir équipe adverse bi doo encaisser bi par exemple damay jox exemple parce que foofu laa ko mën a gën a mën a eh, kii quoi euh, expliquer ci loo xamante ne si ne eh, danañ ko mën a comprendre jublu mu ci woon sax comme leeral yi li nga ma ci laaj tax ma wax ci nii moo tax ma ne la. lii ay ay ay xeeti matériel la yoo xam ne Iran moo ko defaral boppam fabriqué ko boppam ci biir fabrication boobu nag boo xoolee photo bii ma la dugal nii mooy dernière attaque bu mujj bi bi Iran mujjee attaqué euh, bi Iran mujjee attaqué parce que attaque bi ay mëtul sax ay minit maanaam missile yi mu jëlee ci réewam. ak bi muy egg ak bi muy egg si Israël ay seconde la daanaka te bëri na ci yoo xamante ne si am na photo bu ma dugaloon bërki démb photo boo xamante ne si ne gis ne Royaume-Uni ak ak euh, ak euh, dañoo yor seen antimissile yi gën a fort installé ko ci côté Liban yi installé ko ci yeneen suuf yoo xamante ne si ji ji muy bàyyi ko muy jaww Iran jëm dëgmal jaww eh, Israël dana am suufi suufi jàmbur yu muy yu muy yu muy jaar inte foofu nag lañu lañu la installé anti drone ba nga xamante ne si sax boo xoolee drone yi Iran di utiliser day naaw ba ca kaw nga xam ne maanaam espace bi ñu permettre xam nga jaww kenn ku nekk yaa moom sa jaww mais am na foo xamante ne si bu fa bu fa bu fa soree lolo lolo dañ koy dañ koy dañ koy considérer comme jaw jo xamanteni ni si ni ko bokk dama xamagul nak maître yi la maîtriser deug deug lu muy toll mo tax danaka yu iran pour mu abou sous mën a israël deug deug man ko bombarder comme ni ko israël di def mu xawa jafé jafe mu xaw a jafe rek parce que tabé ko moy wut moo tax boo gisee ma duggal drapeau yi sax moy iran ci dañu ñaan yi commencé na ubbi ku ci walum diplomatie ci walum diplomatie moy li ma doon wax ne iran dafa tëju parce que embargo bee tax mu tëju te lolu baaxul ci moom moo tax ci côté Afrique ñi nga xam ne ubbi na fi buntu négociation boo commencé di waxtaan ak ñoom Sénégal mi ngi en mais ñi nga xam ne moom daanaka ñoo ci ñoo ci jiitu mooy Éthiopie soda Niger ak Mali mi ngi négocier ak ñoom bañ bañ commencé waxtaan ci lu jëm ci wàllum fournir ay arma mais quant avant boobu ci Afrique ñii lay mës a seqal ci àdduna bi pour di leen jox ay drone lu ci mel ne que xeex ba am ca problème bi amoon ci Libi ay ay ay ay ay yum defar utiliser nañ ko ca suuf soosa boo demee fële ca Bachar al-Assad ca Syrie ak Corée digganteem ak Corée du Nord digganteem ak Chine digganteem ak Russie parce que bu mu ci mujj rek mooy Russie boo xoolee yim doon yim doon utiliser woo drone yim doon utiliser woo nga xam ne. antimissile laa ko mën a tudde parce que doo ko gis ay day day day invisible la doo ko gis moom la moom la doon utiliser drone ni iranien yi ñoom nag côté boobu for nañ ci moo tax certes que attaque bi metti na ci eh, rey bi nga xam ne rey nañ ko njiitul Hamas bi metti na waaye nekkul ne Iran dafa néew doole moom laa ci doon utiliser moo tax ma dugal photo yi dugal drapeau yi ci wàllum diplomatie mais bii ma laal ni ci sama loxo mooy ñi nga xamante ne si ne ñu ngi jëflanteeg Iran ci jënd ay ay armam di ko utiliser ay ay laay wax di ko utiliser muy fële ca Libye muy fii ci Bachar al-Assad ci Syrie muy Corée du Nord ñu ngi koy jëflante ci seen biir muy digganteem ak um, Chine muy digganteem ak um, Russie fii na nag Iran ak ñaare boo ci wax lu mu am ak lu mu ñàkk wala lu mu amul nit ñi duñ la diglu parce que ñi ëpp ñi ko bëggoon fayu fayu gu feresu rek lañ bëgg moo tax lii nag boo gisee ma di ko dugal sax mooy ay xeeti missile la yoo xam ne bokk na ci Iran mujjee defar bu noir bii ma teg sama sama sama sama sama loxo ñu koy wax al moom bokk na ci mujjee defar bi tax na gën naa tax sax américain yi gëm ñoom gëm nañ ne parce que dafa am ñaari wax yoo xam ne dañ ko war di xam li ñuy wax di ko fësal ak li ñuy wax duñ ko fësal parce que gars yi dañuy nëbb seeni mbir loo gis àdduna bi ñëpp noonu la ñuy ci ci fabrication arme moo Iran ñi nga xam ne université université bi mu am Iran laa université dafa am université militaire boo xam ne day yëngu ci wàllum science technologie moo tax ay ay ay ay ñoo xamante ne si ay ingénieur lañ euh, am xam-xam trop ci wàllum defar ay yu mel nii euh, Israël da leen di espionné sax di leen rey bokk na ci li gën a noonoo diggante Iran ak Israël loolu ci la bokk. Israël da day espionné da leen di espionné di leen di rey di leen di faat bu ngeen amee ab seetlu bi xeexu Ukraine bi commencé ak euh, Russie ku ñuy wax euh, Alexandre Dugin yéen a ngi koy fàttaliku amoon na benn na benn boom buñ ko fi naroon a boom benn kamikaze ci oto te mu àndoon ak xaritam wàcc otoom yéeg ci oto xaritam doomam ju ñuy wax Daria Dugin jël oto papaam ñu jiitlante oto derrière oto bi oto oto oto Alexandre Dugin moo explosé te ci la doomam nekkoon doom jooju doomam jooju nekkoon journaliste daan def live ci début bi daa faatu ndax loolu la ko indi woon mooy dañ daan wax naan moom mooy cerveau Poutine te am na ci yeneeni borom xam-xam yu russe yoo xam ne gars yi ñu ngi leen détecté di leen bëgg leen a wër pour gis leen rey leen. waaw ah, pour gis leen rey leen parce que moom ci moom Alexandre Dugin am na ñu naan sax lu peut mën na nekk mën na bañ a nekk ñu ne 17 langues am ñu ne 14 dégg na ko léegi dafa am borom xam-xam yu mel noonu yoo xam ne invisible lañ kenn du leen gis moo tax maanaam ñun lépp de su ko mën a wax mais ko ci kem temps bi lañ mën a waxee parce que am na yoo xamante ne si ne ci circonstance bii ma koy waxee su ma koy waxee ñu ma koy ma koy wax sax ni era amna li kian li kenn du ko gëm parce que li tax duñ ko wala boog duñ ko bëgg dégg parce que tax duñ ko bëgg dégg moy da boko waxé tontu biñ lay tontu moy Iran si daniel année yépp Israël ñu koy songu di def naka sudul noonu te moom defagul dara kon mënoo ñu gëm né Iran amna li effectivement c'est que Iran amul badjan comme niko ko Israël amé Israël da ko ëppale loolu ko ci ëppalé lu bari da ko ci ëppalé léegi nag moyen-orient bi lu nekk petit à petit la parce que wax naa leen ne leen xeex fu njëkk diggante Palestine ak ak Israël gars yi ay xeer lañ doon xeex ñu dem ba mu yàgg ñu gis ne Gaza ña fa nekk di xeex ña ngay commencé di am yu ñu defal la seen bopp ka ça veut dire que ne kon affaire yaa ngi yéeg parce que dem nañ bay mujj ñuy am yenn yoo xam ne ñu ngi koy fabriquer seen bopp ci la Israël sukkandiku ne Iran moo nekk ci seen gannaaw moom ak Hezbollah moom ak waa Yemen léegi nag loolu nag moom laa leen wax bii nii ma teg sama loxo nii muy bomb bii ñuy wax Fatah daa bokk ci mujj yi Israël mujj yi Iran mujjee defar Amérique ak euh, états euh, kii nu ñu koy waxeeteeti Israël ak royaume léegi réew yu bari ci ci Europe ci lañ gëmee na ne Iran mii mi ngi ci yoonu am te nucléaire yi parce que bomb bii bii nii ma leen defar ma naan bomb sax kii nii mis bii nii ma leen wan missile balistique bii ma leen wanan nii da da mën naa jël ay bopp. ay bop yu yo xamna bop nit li yar ak yu bari man nako jël te en plus même bu jaww ji soppi ko bu jaww ji soppi ko ñu brouillage ko mo xam dafa sedd wala dafa ngelaw wala tok da bari bu tee day dem man na aw ci kaw su ci kaw air bi man na aw ci suuf si lolu nak ci la bok. na ci li gëna augmenté waat problème yi sax lolu ci la bok bi ni depuis que Iran publié wat ko ba légui jam monde bi ñu bari amatu ko parce que nee Iran bu duñu ko baye muy defar yi mi ngi ci man nak motax man yàgg naa wax ne Iran am na ko parce que li may wax nii du neex a dégg mais am na bis boo xam ne mi nga ci suñ kanam te bu boobaa lu waaye am ca arme da ko génnee te Iran xam na ko te Iran bu fabriqué wul lii lii ñu koy tere bu bu bu fekkee see Amérique ki lii lii Amérique bañ mu am Israël bi mu am ko bu boobaa moom ci réew yi ñuy massacré ci lay bokk te pour ñu bañ koo massacré il faut mu am boobale arme te man ni ma ko xamee nii xam naa ne Iran moomu ko a waaw lii nag dañ ci expliquer rek di wax ne nag nii ko Iran amee parce que réew yi doole yi kem ñoom li ñu wan lañ mën a gis au profond yaay xool def ak sa investigation nga méngale nga méngale mais en tout cas Iran ni mu amee doole bu leen fàtte ne Israël tamit dafa am doole bu ñu waxantee dëgg Israël dafa doole ci wàllum armement ci wàllum technologie parce que Amérique dafa ne ci gannaawam di ko épaulé Angleterre ne ci gannaawam di ko épaulé France ne ci gannaawam di ko épaulé parce que wax naa leen fii bu yàggoon. am na munition yu bëri yoo xamante ne si ne avant ñuy xeex digganteem mag diggante Palestine ak Israël ci xeex bu mujj bi laa wax avant ñu ciy dugg am na benn xeetu dencukaay boo xamante ne si ne Amérique dafa daan yëkkatee ay armam di ko jëlee Amérique di ñëw di ko dépôt biir Israël. parce que xam na ne si Moyen-Orient boobu même yeneen zone yeneen base militaire yi nga xam ne moom am na ko moom Amérique su amee yenn munition wala quelques armes yu mu foore yóbbu li muy ci biir Israël la koy jëlee dem yóbbu ko foofu moo xam tey bu amoon base militaire fu mel ne tey par exemple Qatar suñu soxlaa dara day ñëw biir Iran biir Israël fa la koy jëlee yóbbu ko Qatar mais du day jóge Amérique sax dem di ko yóbbu ci Qatar waaw loolu nag maanaam géopolitique daal dafa am yenn xeeti stratégie yoo xam ne. li ñuy wax naan politique du course de vitesse course de fond la euh, ger noonu lay demee parce que gars yi dañuy dañ lay bëgg defaat di la merloo nga dóor anti balistique nangam ñu daal di lay xool jël say matériel yóbbu ko ci seeni laboratoire jàngat ko moo tax ngay gis Russie bi muy xeex ak euh, Ukraine sax doroon yoo xamante ne si ne Iran defoo ci bokkoon na ci njëkkoon a defar wala yi ak yu mujj yi la jaxase di ko xeexe xeex ñaare xeexewut yosom dëgg-dëgg moom moom moom du si waaw na ne rek gis nga déploiement yi ñu def nii si ay takk der mësul am daanaka si ay compétition mësul am si ay compétition surtout jeux olympiques yi lépp li ko war a mooy contexte géopolitique bi am si ay si ay xeeti ay métit diggante Russie ak Ukraine dakkul diggante Iran Israël diggante Israël ak Palestine coow li di commencé tàkk moyen nga xam ne am na benn diplomate qatarien boo xam ne moo doon facilitateur maanaam moo doon yombalal mbirum kii nuñ koy waxateeti eh, dama koy fàtteeti moo doon yombalal diggante Israël ak Palestine nga xam ne maanaam moo ko doon dox pour ñu dakkale di guerre bi mais barki bi attaque bu mujj bi amee fële ca Tahran te ñu rey njiitul Gaza waa waa Palestine bi moom nee na moom lii day gën a jafeel waxtaan wi kon kon waxtaan mënatul am moo tax li nga xam ne moo wér te mooy. ku ci nekk ak say alliés yaa yéen ngi toog di waxtaan ndax ñoom ñoom Israël xam nañ ne Iran ak ñim àndal danañ fayu parce que boo reyee kenn ci njiitu ci seen njiit ci Hezbollah danañ fayu nga kenn ci waa Gaza seen njiit lu mag te fa ko reyee mooy suuf sa nga ko Iran ak ni nga ko reyee waaw parce que ma nga woon diggante Qatar jóge fa dem turki reyoo ko nga bàyyi ko ba mu ñëw ba mu ñëw biir biir biir biir biir naa nga ko fa. ça veut dire que ne kon ñoom humiliation lay lañ koy gisee monde bépp noonu lañ koy gisee humiliation lañ koy gisee Iran humiliation boobu nag Iran il faut Iran wane benn riposte boo xam ne bu bu bu bu ferasu lay doon bu bokkut ak yu njëkk yi parce que ñi nga xam ne tey ay pro iranien lañ wala ay pro palestinien lañ moom lañ àndal loolu dong lañ ciy xaar xaaruñu ci leneen moo tax loo mën a wax si Iran si lii la am si ay armes mooy jàmbaar la mooy def lii duñ la mën a dégg dañ naa la saay moo tax man ñi ci xuloo di ci kii comprendre naa leen si côté boobu parce que liggéeyub Israël la parce que Israël lii la ci bëggoon humilier Iran humilier Iran parce que mi ngi mel ne moom Israël gi attaque bañ ko defoon sept août bañ ko njëkkoon attaque par exemple attaque booba waa Hamas dañu umilier Israël parce que dañ ne moo gën a fort ci ensemble ci ay secret luy waaj a ñëw xam na ko lu tax kon attaque bii mu mën koo bett bañ rey ci mel nii jàpp ci ay nit yu mel nii. waaw maa ngi lay normal ah moom la ñëpp di xaar de wax dëgg yàlla man de eh, d'ailleurs ci renseignement yi ma gis yi ma déggal ci information ma naan renseignement sax information yi ma cee gis moom mooy gars yi moom ñi ngi ñi ngi ñi ñi ngi ñi ngi ñi ngi waxtaan daal waaw lii nga lii nga wax nii nag moom la ñëpp di xaar moom boo duggoon ci réseaux sociaux yi plateforme yi commentaire yu mel nii fépp moom la ñuy commentaire maanaam na fayu na fayu te fayu gi lu mu lu mu lu mu mën a mel doyu moom la nit ñi di xaar quoi léegi nag ñu bari dañ naan dañu fi dañ cee xas Iran ñii di ko ci tàgg loolu nag bataille d'opinion la boo xam ne moom Israël loolu la ci loolu la ci bëggoon waaw Israël loolu la ci bëggoon